Euh, on joue euh, une actu euh, avec Marcel Marcel tey jii ñuy dellu si ci wàllu njàng mi ak accord yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal conclure na ko entre syndicats yi mais di SAMES SAEMS ak CUSEMS waaye dafa euh, mel ni am na ay mise en garde. voilà ay mise en garde yi euh, nga xamante ne SAEMS ñoom ñoo ko euh, adressé ñi nga xamante ne ñoom ñooy état bi par rapport ak ñi nga xamante ne moom mooy non respect des accords yi nga xamante ni signé nañ ko à la fin te mu mettre fin à la crise scolaire bu ñu sukkandikoo ci Saourou seen nekk secretaire général SAEMS en conférence de presse mercredi nee na yàgg na nag que ñuy xaatim ay accords ñoom ak gouvernement bi et à chaque fois li ñu gis na ne mooy accords yi duñ leen respecté loolu waral ñuy alerter seen devoir la ñuy alerte euh, ndaxte ñu ngi door a euh, xaatim ay euh, ay accords yu bees ak ñi di parti gouvernemental bi ñuy considérer nag accords yi am na euh, njëriñ tellement pour ñoom euh, gouvernement bi fu mu nekk ni am nañ obligation rek ngir euh, respecter cette fois-ci yooyu les accords. waaw ah, mu mel ni augmentation ci wàllu payoor bi am na lu ci jot a xam. waaw ah, am na lu ñu ci jot a xam un peu ndaxte dans di fii ak lu lu gën a néew benn at dans moins d'un an inspecteur éducation nationale am au minimum une augmentation nette de 287 000 francs CFA sur son salaire gain bi nag mën a dem ba 348 000 francs CFA. Euh, en fonction justement des catégories professeur d'enseignement secondaire moom tamit nar a am au moins 196 000 francs CFA net euh, sur son salaire somme bi a dem ba 267 000 francs pour les plus gradés euh, de cette classe et puis concernant les professeurs d'enseignement moyen a mën a dem ba 228 000 francs CFA toujours en fonction des catégories même chose pour les professeurs de collège

le 1er mai prochain, à partie restante bi, euh, donc en janvier 2023, aussi bien justement pour les fonctions euh, dirigeantes que pour les enseignants en tant que tels. mais li ñu jàpp nag mooy euh, enseignants yi moom yokku bi rafetlu nañ. xanaa kontaan nañ <laughs> comme on dit <laughs> de la joie en salle des profs ndax bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñoom comme par exemple Abdoulaye Fane nekk président UNAPES doon jokko ak waa Le Soleil nee na état bi nag def na ay efforts yu bëree bëri ngir fexe ba satisfaire enseignants yi ci wàllu négociation yi. yi am na ci sax ay syndicalistes yi nga xamante ne dañoo avoué ne musuñu gis état Sénégal def effort yi di mel euh, muy ay propos Abdoulaye Fane et puis benn professeur d'enseignement euh, secondaire euh, sous couvert de l'anonymat moom nee na am na master plus 2 avant augmentation yi mu ngi amoon 461 000 francs de salaire léegi ak augmentation yi dina am au moins 700 000 francs de salaire c'est inespéré ah, xalaatu ko woon ah, et puis Saourou Sène moom <laughs> di di mettre quand même toujours en garde hein bien vrai que mu ngi reconnaître ne obtenir neen ay augmentation révélation yu historique euh, nee na nag beneen dépense euh, warul euh, gën a am solo bu école sénégalaise ndax dëkk daal dadul développé wu ak pétrole gaz wala zircon un pays se développe avec des ressources humaines de qualité et naturellement ces ressources humaines de qualité sont issues de l'école vers la mise en place d'un comité de suivi loolu tamit mooy interrogation bi ñu am fu mu nekk nii ndax en conseil des ministres bu 2 mars pa passé président Macky garantir benn pacte social durable euh, ngir fexe ci ci secteur éducatif bi ngir fexe ba mener dans le consensus ay initiative ngir gën a mën a améliorer qualité enseignant yi ak apprentissage euh, kii di Cheikh Mbow moom euh, directeur exécutif de la COSIDEP ci waa suñu naataango 24 heures la doon la doon waxtaanal ne leen imminence enfin gaawu gaaw bi ñu def fexe ba indi solution ci crise bi mën na doon déclic fexe ba confiance bi dellusiwaat de suivi des recommandations des assises de l'éducation. am xam ne nag kenn saafara naturellement am na ay jafe yi lu mel ni réaménagement du calendrier scolaire toujours bu ñu sukkandiku ci Saourou Sène secrétaire général euh, SAEMS euh, keroog mercredi nee na euh, yàgg neen ko wax ministère de l'éducation nationale ñoom nag bëgguñu nekk dans une logique dans une perspective de cogestion ak ministère de l'éducation nationale waaye pas yu ñu daal di teg ñoom waa ministère de l'éducation nationale waroon nañ ci waxtaan ak ak ñoom ndax lu jëm ci wàllu calendrier calendrier euh, scolaire bi ñu jot a réaménagé au même titre que la presse euh, ñoom daal dañ ko recevoir euh, noonu il n'y a pas eu d'échange entre nous et le ministère sur ce calendrier réaménagé et puis lu jëm tamit ci wàllu ponction ci salaire gréviste yi li ñu leen teel ci seen salaire nee na nag à l'issue de cette grève yëg neen daal ne ne teel nañ leen xaalis yi nga xamante ne dafa peser ci revenu yi nga xamante ni surtout contractuels yi la gën a laal te ponction yooyu noonu moom day considérer que ñenn ci ñoom daal demeewul noonu c'est irrégulier c'est c'est illégal entre guillemets ndaxte euh, dañ jël lu ëpp euh, le tiers du salaire daal di ko euh, génne ci ci salaire yooyu yooyu enseignant voilà Marcel ñu ngi lay jaajëfal ci xibaar yi nga xamee ni andil nga ñu ko ci wàllub njàngale mi mm, voilà les amis je pense qu'on n'aura pas le temps d'y revenir tout de suite dañuy dem seeti à Ziguinchor Boubacar Diassi mais d'abord la rubrique de quoi est-il le nom jingle s'il vous plaît Voilà, on fait signe qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, de rentrer en contact avec vous, Bakar Diassi. Euh, je pense que donc ce n'est que partie remise en euh, Niassia, la ñu waroon dem mais Chérif un mot donc euh, si euh, yokkute bi nga xamee ni gis nañ ko ci payooru syndic nu tuddati enseignants yi ak ginnaaw seen grève bi nga xamee ni am nañ ko fi mu nekk nii mën nañu jàpp ni école dina gën a dal parce que d'après dañu Marcel wax yëf yi xaw na takku. waaw xaw na takku dina gën daal parce que moo taxoon syndicat yi ñi ngi doon wax ne bu weer wi deeyee tey ban dem ci seen xool seen bulletin de salaire buñ ko ci gisee jafe-jafe du am moo taxoon même jël à témoin ñii di société civile bi muy COSYDEP ak les parents d'élèves comme xaatinam ku ne xam na ni grève bi woon négociation yi la même chose parce que mooy système de rémunération mooy nerf de la guerre comme ni ko waxee chaque fois parce que dañu jàpp ni agent de l'État yi yemalewul leen gis nga jamono ji sax waa santé tamit dugg nañ ci mbir yi ngir waxtaan euh, xëy na après jàngalekat bu yokkee tam ñoom di peut-être que yëf yi euh, foofu lay nar a méttee ci gouvernement bi comme parce que ñeneen ñi tamit dinañu laaj faw ñu saafara seen i jafe-jafe. waaw parce que jafe-jafe bi yëpp lu ci bëri mi ngi jëm ci payoor gi parce que ku ne xam na ni dund gi yokk na te payoor yi demewul noonu donc te euh, li nga xam ne moom moo am diggante enseignants yi ak nguur gi dafa nekk lu nga xam ne tey lu ñuy regretter mooy temps bi. Euh, crise bi duré te ñu mënoon ko saafara bu yàgg parce que du ay jafe-jafe yu yees du ay plateforme revendicative bu bees lu yàgg la woon lu nga xam ne gouvernement moo ko signé woon nii mën na ko dem nañu ba jamono ñu soog a nangu nii mën nañ ko toog nañ ci taabal ji réglé nañ ko yeneen front dina ubbeeku mais yàlla na lépp saafarawu merci à vous te réew mi attan merci à vous Malick et Chérif Dia dañuy dem euh, ci Médina ma matin fekk fa Babacar Fall muy dalal tey ji Amadou Gueye président de l'Union euh, des